ci jaaxal Cheikh Ahmadou. mooy pourquoi point de départ yëpp nekk ay point de pêche. coïncidence la wala dafay euh, fësal ni. Mhm. Euh, suñu secteur pêche bi moo nekk en péril. <coughs> absolument loolu il faut le dire licence de pêche yi nga xam dañ ko jaayoon mois j'ai fait une documentation dem fu mel ni Saint-Louis j'ai rencontré les capitaines yi nga xam ne ñoo doon piloté pirogue yi ñu ne ñu gaal gi nga xam dañ ko yattoon ngir mu nappi bu nappiwul taxi lay doon diggante Espagne ak fii. taxi. taxi lay doon effectivement am na ñoo xam dañuy jël gaal yóbbu ko Espagne indiwaat ko. dama suis choqué. ah oui xam nga lu tax. taxi mel ni ku nekk ci tali mais effectivement parce que effectivement li nga xam ne tey jii moom mooy seen géej dañ ko jaayoon. maintenant bu fekkee ne tey état ñëw na di renégocier li nga xam ne mooy contrat di jéem a tegaat loxo li nga xam ne mooy suñu géej gi dina mën a tax ñooñu rek capitaine yi rek ku leen teye woon gaal dootul génn parce que ñoom ñoo xam naka la ñuy dawalee gaal boo fexee ba géej gi delluwaat seen loxo. boo fexee ba seen économie li nga xam mooy l' économie maritime mu ñëw ñëwaat seen loxo dans ce di nga mën a xam ne effectivement ñii am nañ loo xam ne tey ji mënees na koo teg. ci li nga xam ne moom moo ci moom moom mooy ci. kii alors naa ñëwaat ci waxtaan bi alors Pape Sané est ce que les convoyeurs ñoom yëg nañu sanction yu yu mën a yu mën a encourir parce que ce qu'ils sont en train de faire c' est des actes criminels te mën nañu leen sax poursuivre pour crime. tout à fait euh, vraiment euh, à l'image de Khadim. non xam naa ni moom tey moom tu es très ému. waaw non ah. parce que j'étais mm -hmm. ce matin à Mbour pratiquement une partie de ma famille ah mooy femme bi ngay wax bu teggi tontinam. ndeysaan. Euh, voilà c'est c'est c'est une Euh, c'est la c'est la famille Sané de Thios Thiosé. Wow. Oh. donc euh, pour dire euh, en fait. Mbour Thiosé waaw. Euh, ndeysaan ak période septembre. voilà beeg bi li li gën a yéeme. Euh, merci déjà pour leerali ñun Sénégal dañu tàmm ci wàllu traite ak trafic bu ñuy topp. ñii nga xam ne ñooy ñëw di mooy Sri yi yeneen xeet yi nga xam ne ñooy ñëw dajale ay boy jaarale leen aéroport yóbbu leen bu ñu leen di jàpp ñooñu la ñuy topp pour wàllu traite au trafic de migrants. mais les véritables criminels yi nga xam ne lii mu ñooy def ce qu'on appelle le business de la mort parce que ñee ay faux documents nañ lay defal jaarale moom yoon da ci sawar sawar sawar pour arrêter leen mais alors que tey jii ñii nga xam ne moom la ñu xaadim jot wax léegi nii mais ñooñu ce sont les vrais acteurs de la mort. parce que ñooñu seen business yëpp mooy jaay. ils vendent la mort. parce mhm. que mënoo wax euh, kenn mënul garantir nit. ni la sur cinq kilomètres euh, euh, ci biir géej mun nga mucc encore moins sur sur terre comme sur mer mais nit ñooñu ñu bàyyi leen à foison ñuy procéder à des départs on te parle de par exemple mille deux mille trois mille quatre mille départs annuellement à partir du Sénégal mais c'est extrêmement dangereux te ñoo ñu koy def. ñu ngi les pays de la sous-région fii ni ñu bëri léegi Sénégal la ñuy déparé mooy pays de transit bi mu lay wax noonu cest à ñu ci bëri fii la ñuy ñëw fii la ñuy déparé alors ñooñu noonu moi par exemple la zone au j'habite euh, euh, Kafountine Abéné mhm. man léegi léegi léegi nii su mun naa la taxaw wax ne la am na gaal bu war a dem mhm. ce n'est pas un secret tout le monde le sait mhm. dans le village tout le monde sait am na gaal bu war a dem ça se sent ça se voit. on est tous responsables dans ce cas. Ah, Pape oui, Pape Sané. mais problème bi attends problème bi tamit mooy quelque part. Mm-hmm. quand il faut faire passer l'information souvent c'est très compliqué. xam nga des fois. bien euh, sûr je peux pas je veux pas être là di jeter l'opprobre mm-hmm. sur nos forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. mais dafa am la nga xam ne tamit euh, suy am di am de manière récurrente. ça veut dire beaucoup de choses. bon on n'est pas là pour accuser qui que ce soit mais li leer ba leer. mooy comme ni ñu ko waxee sànq cette affaire il faut la prendre avec moins d'émotion cest il faut que de la fermeté de la froideur mmh. il faut de la froideur ah le président a annoncé des des des, des batteries de mesures donc dinañ ci dugg notamment dinañ mettre en ligne benn numéro vert waaye aussi ñuy dénoncer képp koo xamante ne c'est des convoyeurs dañuy gën durcir ba pare jéem a je sais pas des réformes comme ñu defee assise euh, de la justice mais pourquoi pas ñu def ay assise ci affaire migration loolu lañ dañ ko war amal parce que fu mu toll doom ak suñuy rak ak suñuy mag suñuy papa ñoo nekk di di di di par où on devait commencer balaa ñoo wax assise de fois-ci l'assise qui devait être faite en premier assise de la jeunesse surtout en matière migratoire mhm. cest à Sénégal di perte daañu fi toog fii ak quelques années on nous dira que le chef de l'État manque mon le Sénégal mhm. a une population vieille mhm. parce que sunu ndaw yëpp ñi ngi dem ndaw yi ñi ngi dem cest bo dire boo gisee le taux le nombre yii di génn di dem yow après tu as tu, tu, dans le dos tu te dis mhm. que ça c'est pas possible ñun mhm. finalement on va se réveiller un bon jour euh, man su may sët ils seront nés en en Europe euh, keneen ay doomam ils seront nés ainsi de suite ainsi de suite donc on va se retrouver ñun ñëpp ay vieux sans pour autant am une progéniture jeune bi nga xam ne moo war a loolu tamit moo tax ma ne dañu war a def une assise de la jeunesse mais pour revenir sur le sujet euh, mhm. si on ne prend pas des mesures c'est-à-dire que waxuma euh, des mesures euh, pour mhm. calmer conjoncturelles déedéet mhm. c'est-à-dire il faut prendre des mesures structurelles aller dans un sens où ceux qui à qui on a confié les responsabilités de la politique migratoire mhm. ñu bañ a ñëw ne Frontex donc une, une affaire politique ne Frontex mu ngi fii diw mu ngi fii non ñun Sénégal nañ ko gérer d'abord nañu mën a cette question a toujours été gérée par les Espagnols les Italiens nga xamante ne ñoom ñooy les pays d'accueil nu ñu mën a gérer jaaykatu yamba ci quartier yi mais quand on veut choper un jaaykatu yamba c'est facile hein les gens font du renseignement ba jàpp ko dans le quartier autant bu ñu bëggee jàpp un convoyeur de migrants autant c'est facile c'est-à-dire c'est des filières c'est des filières yi nga xam ne bien établies bien huilées loolu moo nag foo tax ma ne voici une des mesures bi nga xam ne phare bi nga xam ne président ak son gouvernement dañ ko war a acté dem ci très rapidement faire la traque de tous les convoyeurs. d'accord de tous les convoyeurs mooy benn ñaar fi ñu defaree gaal yi ñëpp xam nañ fan la. Mm-hmm. et souvent même l'état l'état l'état subventionne. c'est ça. gaal yi di de rey nii booy di ci dugg di dee état da ciy subventionné. subventionné comment. mooy maanaam bu ma ñëwee tey ne man pêcheur la

au fond des choses. d'accord ni ñuy traquer les jaaykatu yamba euh, trafiquants de drogue et autres noonu nañu war a traquer kii c'est-à-dire gis nga bés bu ñu commencé. Mhm. fexe di poursuivre les gens ici. Mhm. ci wàllu traite ak trafic de migrants. durcir sanction yi non parce que c'est criminalisé. bu ñu ko toppee léegi léegi léegi nit ñi bàyyi. d'accord alors pour les batteries de mesures yoo xam ne président da ko da koo jël yow en tant que spécialiste ci mbirum immigration irrégulière euh, pour yow lan la war a nekk première décision boo xamante ne léegi léegi da ko war a jël mu nekk lu jàmp. bon li ñu war a jël léegi léegi c'est sur le plan sécuritaire sur le plan sécuritaire boo ko déggee moo ñu xool naka la ñuy def ba barricader li nga xam ne mooy sunu sunu sunu sunu sunu espace maritime mm-hmm. renforcer outils yi nga xam mooy les de de de de surveillance parce que il faut le dire ah Sénégal def na ci ay jéego. Mm-hmm. parce que gaal yi boo jëlee 2005 ni gaal yi doon demee yu ci mel ne at yi ñu génn gaal yaa ngi départ fii mais gaal yu ci ëpp jeunes yu ci ëpp actuellement Mauritanie lay déparé wala Gambie. Gambie c'est ça gaal yi nga xam ne tey jii ñoo fi déparé bari am na ay gaal yoo xam ne ngi déparé Sénégal mais. surveillance loolu moom moo ko waral beneen bi nga xam ne mooy surveillance aussi am na ci solo mooy boo xoolee ni ñuy arraisonné gaal yi démb ñu ngi toog di jooy ñi nekk Mbour au moment pareil ñu jàpp à Saint-Louis 400 personne yuy dem. après Mboro 37. Mboro 37 tey jii mooy wane ne intervention sécuritaire maritime bi am na am na. mais il faut que ñu gën ko renforcer mais niñ koy gën a renforcer mooy sànq danga nga ci ñëw batterie de mesures yi président man de li ma ci gën a jàpp mooy il faut criminaliser ça. c'est déjà fait. attends c'est-à-dire ñi ciy jàpp ñëpp man dama ci gi xam koo xam ne bu la tëjee un an mais dangay ngay génn. moo mois nga naan ma un an. am na ñoo xam ne un an six mois li mu ko xam ne te di génn ok ñaata nit la rey. ñaata avenir la yàq maanaam Sénégal la détruire parce que xale bi mu détourné. Mhm. ba mu dugg foofu noonu tey kooku avenir mën na doon président de la république. mais bu la tëjee benn attiré benn un an six mois nga génnaat. est-ce que du reflété wu question bi dañ ko oyofaloon. merci beaucoup parce que xam nga c'est des mots yoo xam ne da koy dégg mais gisoo leen. merci fois-ci lu tax lu xew Mbour choqué parce que ñoo gis. des images gis ñuy jël ay nit. Mhm. di leen jël di leen teg ci ay ñu xam ne ñii ay nit ñu ñàkk seen bakkan la moo tax mu choqué ñëpp tout le temps si des morts yooyu dégg mais daana woon gis. merci beaucoup loolu moo tax nag sur le plan juridique juridique maanaam ñu durcir li nga xam mooy pen yi quitte à ce que peine de mort bi ñuy wax fii la jaadoo man je réclame pen de mort. waaw parce que dañoo rey ay nit. ah oui. Mhm. noo rey ñu benn nit ay nit la ñu rey. mais regarde le cas de, de, du, du maire de Mbour sa famille est décimée. merci beaucoup. Hmm? même le maire Issa Sall. tu le vois da nga xam ne kii nekkatul nekkatul da nga koy xool nga xam ne kii nekkatul. ndeysaan ñu ngi koy jaale donc ci solution yi la bokk beneen solution bi nga xam ne war nañ ko indi mooy sur le plan structurel. li ma wax ne ay solution conjoncturelle la yoo xam ne mën nañ ko def tey daar daar durcir les peines mais aussi mettre en place une entité spécifique qui gère la migration. Mm -hmm. au Sénégal on a travaillé sur un document de politique nationale. kon Sénégal fii amul xam da koy. Hmm. non je précise. au Sénégal on a travaillé sur un document de politique la migration en 2018 c' le ministère du plan moo ko piloté j'ai participé ci atelier yooyu mais bi ñu ko validé techniquement experts yi ci nekkoon en 2018 mais politiquement ñu ngi koy soog a adopté novembre 2023 2018 ba 2023 finalement Guinée équatoriale même. 2018 ba 2023. Guinée équatoriale avait exploité notre document. Mmh. Ça, il faut le savoir. Ah oui. Maintenant, liggéey nañu aussi en 2023 bi ñu tegee le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière bi nga xam ne dañ ko loger au niveau du ministère de l'intérieur bi ñu def la stratégie dama bokkoon ci ñi nga xam ne aussi dañ leen a copté woon ñun ñoo liggéey. ci parti parce que cinq axes la woon prévention gestion des frontières mesure de répression accompagnement et réintégration dama bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon bind doon xalaat groupe yi nga xam ne ñoo doon ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari axes yi lu jëm ci mesure de répression moi je lui disais que attends jeunes yi ay victimes lañ mënuñu ñu leen réprimander mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñoo koy organiser il faut qu'on exige li nga xam ne mooy des peines c'est des victimes deuxièmement mooy beneen bi mooy ban mooy li nga xam ne moo jëm tey par exemple ci li nga xam ne lay moo am gestion des frontières quoi qu'on puisse xam ne tey jii il faut le dire mais yi ñuy gis ñuy ñuy ñuy dugg ci gaal yi ñoom fa la ñuy jógee non déglu lu ma la wax ay di fu parce ni muy demee ni muy demee je t'explique xat yi ni muy demee mooy dañu naan xam ne